door ak le soleil le quotidien national journal bi xëy daal di fësal ci xët bu jëkk bi nataalu président Bassirou Diomaye Faye nekk nag président bu yees bi nga xam ne fal nañu ko dibeer gi nu génn yëglekaay bi nag daal di ñëw ci ay kaddoom yi nga xam ne yëkkati na ko démb ginnaaw bi nga xamee ne nag jàkkaarloo nag kanu Sénégal nee na nag jël na engagement a ngir nag daal di gouverner réew mi ci anam yu mucc ayub Sud Quotidien di feelu le soleil ci wax jooje daal di ñëw ak ñun ci kàddu yi nga xam ne cinquième réewu Sénégal daal dina koy yëkkati ne nag jël na engagement ngir nag euh, taxaw réew mi waaye it daal di koy jiite euh, ci na nga xam ne nag euh, noonu la ñu ko tabbee enquête yéen kaay ne moom président bu yees bi nga xam ne daal dinañu koy tànn ci jamono ji nag am na lu koy xaar moom Bassirou Diomaye Faye ne dina taxawal ab gouvernement boo xam ne nag nañ ci nemmeeku ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi waaye it ña nga xam ne ñoo nekk ca diaspora ñoom it dinañu leen gis ci gouvernement bi nga xam ne dina ko taxawal dul yàgg la témoin yéene kaay ne Bassirou Diomaye Faye ci jamono ji nag wane na ni nag am na ñeenti chantier yoo xam ne nag moom moom mooy li ko soxal Walf Quotidien di ñëw ci yooyee ne ñu nag lu jëm ci wàllu réconciliation nationale waaye nag xefe ba daal di nag euh, xeex lépp lu jëm ci wàllu guerre naka noone wàññi dund gu cher gi nga xam ne nag ci jamono ji askanu Sénégal ñu ngi koy dund waaye it xefe ba daal di nag taxaw ba lépp nag mën a yemb na ko te it nag dina ci taxaw Vox Populi ne bii mooy discours bu njëkk bi nga xam ne Bassirou Diomaye Faye juróomeelu président bu réewu Sénégal daal dina koy yëkkati waaye nag nemmeeku nañu ci yenn ci ay mbir yoo xam ne lu ci mel ni urgence waaye it ay priorité yoo xam ne nag taxaw na ci moom président bi nga xam ne tànn nañu ko les échos yéene kaay ne Bassirou Diomaye Faye félicite Macky waaye nag ci jamono ji yenn ci ay mbir yoo xam ne daal dina koy xamle mention spéciale bi nga xam ne nga xam ne moo tax nag ci jamono jii fa nga xam ne nekk na fa mu daal di fay nekk moo tax nag fàttewu ko daal di na koy jaajëfal bu baax a baax ci kanamu askanu Sénégal le quotidien moom it desul benn yoon ginnaaw ci mbir mi ne nag Bassirou Diomaye fay ci jamono jii moo yor projet bu Ousmane Sonko moom moo ko fas yéenee doxal ginnaaw bi ko askanu Sénégal wóoloo daal di koy tànn nag ngir nag mu jiite réewu Sénégal surnaal bi ne ci jamono jii nag moom Bassirou Diomaye Faye jël na engagement ne dina jiite réew mi ci anam yu mucc ayib li nga xam ne nag moom la ñuy xaar ci moom mu mën koo matale waaye nag hommage bu am solo la daal nakk jagleel Ousmane Sonko journal bi ne ñu njiitu réew mi Macky Sall ak Amadou Ba daan nañ koy jagleel ay félicitations daal di koy jaajëfal ginnaaw bi nga xamee ni daan nañ koy ñaanal ngir nag yéen bi mën a oyof le point bu nu ko ubbee ci xët bu njëkk bi ñoom ñett seen nataal la nu fay fekk Bassirou Diomaye Faye président Macky Sall ak Amadou Ba journal bi ne ñaar ñii nag daal di nañ koy félicité ginnaaw bi nga xamee ni nag yëkkati nañ ay kàddu jamale ko ci moom waaye yi daan nañ koy ñaanal tribune journal groupe des médias ne Bassirou Diomaye fay kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko dalal na xelu ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron njiitu réew bu France waaye it daan na koy félicité na ci jamono ji pare na nag ngir liggéey moom ak ki nga xam ne moom mooy njiitu réew bu bees di président Bassirou Diomaye Faye li quotidien journal groupe origine sa ne mbir mi kay yamul rek ci Macron ki nga xam ne mooy njiitu réew bu Mauritanie di Gazouani naka noonu ne Agitore bu Guinée Mamadou Doumbia ñoom ñëpp uh, wane nañu seen kontante ginnaaw bi nga xamee ni Sénégal daan na tànn Bassirou Diomaye Faye uh, mu nekk président bi nga xam ne moom moo leen nar a jiite source a ne lii yëpp nag baax na waaye nag nañu jàppale Bassirou Diomaye Faye noonu la ko source a bindee edon Bassirou ana moo tax journal bi wax ko yëglekaay bi di ñëw ca na nga xam ne nag noonu la kàddu démb bi muy janook askanu Sénégal journal bi ne uh, bu nu ko yóbbu woon ci école art oratoire loolee nag ñu bëri du ñu ko bañ école boo xam ne mi ngi mel ni école bu Cheikh Diallo ndax nag démb a source a ni mu ko gisee kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko am na ay erreur waaye it lapsus naka noonee ay hésitation journal bi ne démb ginnaaw bi nga xam ne mu ngi doon amal discours nekkul woon à l'aise moo tax ñu bëri ci jamono jii ñoom nag mbir moomee ub na seen bopp waaye journal bi ne leneen loo xam ne it gis nañu ko ci discours bi port baak chemise bi nekkul sur mesure kon loolu yëpp dañu ko war a nag xoolaat bàyyi ci xel ndax nag ci jamono ji Bassirou Diomaye fay mooy président bu réewu Sénégal journal bi ne loolu yëpp nag bu weesoo nag discours bu am solo nag la daal di la le peuple ne discours bi sax nag moom ci jamono ji ñu bëri nag gis nañ ci seen pop ndax nag journal bi ni mu ko waxee discours rassurant la xamle l'observateur le journal du di tàbbi ci li nga xam ne nag enfance président bu bees bu réew Sénégal waaye it na nga xam ne noonu la doon dundee journal bi ñëw ak ñun ci jamono ji nga xam ne mi ngi doon liggéey nekk maraîcher ca Malika waaye yëglekaa bi di ñu xamal ni ah, ki nga xam ne moom mooy magam bu góor bi mu wàññeekoo loolo indi na jafe-jafe bu rëy ah, ci dundam waaye ñëw ak ñun ci jamono ji nga xam ne daan na gisee ak ah, ki nga xam ne moom mooy soxnaam mu njëkk bi di aawo bi waaye it ñaareel bi nga xam ne nag bi mu xamanteeg moom weer képp moo ci tegu ñu daal di koy tëj kaso dañu koy jeexal ak Tambour quotidien journal bi na ci jamono jii xol yi feex na tànn nañ président bu bees waaye nag kaay leen ma tegal leen ci jàpp leen di nag président bu polygame ngeen am am na ñaari soxna aawo ak ñaari